mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am wa arsalahu rahmatan lil aalamina bi wa badaa'il hikam ashadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan wa rasuluhu sahadatan yajcalu lana qasratan aliya wa an nushati xalbi rasuli samsamil fuyaadi rabbaniyati alladi bidayatuhu nihayatun li jamihi al awliyaai saaxibi alfutuxaati walfuyudaati wal anwaari wal asraari saaxibi alxatmiyati walkatmiyati aba saaxibi alfaydi al akbar mawlaana abil abbaasi seex saydi ahmad tijaani wa radiyallahu an jaddina maam ahmadou ndak sekk radiyallahu anhu laa siyama benn téléphone bu ñu jël ci biir néeg sëriñ bi ko defee ñu ko fa doon saafee ko yi mbokk ginnaaw ban sant yàlla di ko ñaan mu jullil ñu ci sangu-sang ba sangu-sang ya sayduna muhammad sallallahu alayhi wa te di ko ñaan mu gërëmal ñu sunu sëriñ ba sunu yaakaar te ak ëllëg nga xam ni buñ taxawee fii di màggal guddig juddig sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp war nañ ñu jaaraama abil abbasi ahmad tijaani bu du woon ak moom duñ tala màggal guddi gi bu du woon ak moom duñ xam rasulillahi ndax sëñ Abbas Sall daf ni walaw fuqidat fil kawni minhu wisaatatan walaw laxsatan lan dakkat minhu suunu li jige ci rasulillahi kenn rek moo koy téye moo koy doose muy Seex Sayid Ahmad Tijaani radiyallahu anhu bu fa taxawul woon léppay doon pënd kon kooku ñun ñëpp war nañu ne jaaraama ba ni màggal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaanal sunu maam ahmadou ndaak yàlla yàlla yokk leeram te taas ñu si barkeem waaye rawatina sunu sëriñ ba sunu soppe ba nga xam ni tabaarakallaahu ñëpp tabaarakallaahu seen xel ci moom la nekk rawatina ban gisee jëmm ji tedd ji toog muy seex ma di sekk borom yàlla nee na yàlla na yokk leen te taas ñu si barkeem waaye li li Alpha Cissé wayoon ni iqfir lahu rabbana wa ami xalifatahu ni yàlla yàlla nga jéggal Seex Madické borom yàlla nee na waaye yàlla nga aar xalifaam bi di sëñ Pape Mourtada Seck yàlla na borom bi sàmm ko te taxawu ko aar ko ba lépp lu mu yéene ci diine jeeg tarixa bi yàlla na yàlla def mu mottali lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke Abil Abbas Ahmad Tijaani laqad saada man yaati kama asaada man madaari Muhammad waaw maa ngi ñaan kenn ku nekk nga dendal jox ko loxo ni ko baal ma àq ci barke Seydina laqad saada man yaati kama asaada man madaari dal ma ka yaalen dama ne ku fi indi aajo yàlla yàlla faj ko ci barke Seydina Muhammad saada man yaati kama asaada man madaari ay waaye ku fi indi jàngoro yàlla yàlla saafara ko ci barke Seydina Muhammad saada man yaati ah. kama asaada man madaari dal ma ka yëguloo ni buru woon ak Seydina Mouhamed aljana du am buru woon ak njol makka sawara du am laqad saada man yaati kama asaada man mada njol makka yaalindu qad kaana nuurun wala lawhun wala xalamun wala samaun bihi ila wa qadru fiat laqad saada man yaati kama asaada man mada njol makka yaalindu yàlla dafa wax ci alquran ni laqad manna allahu ala almuminina id baasa fihim rasulan laqad saada man yaati kama asaada man mada njol makka yaalindu borom bi bu ko neexoon ni man na allaahu bu ko neexoo mu ni xadd man na allaahu waaye dafa indi la xadd man na allaahu laxad saada man yaati kama saada man mana ñool makka yaa leen ngën borom bi daf kaa giiñ ba pare dëgg dëggal ko laxad saada man yaati kama saada man mana ñool makka yaa leen ngën boo demee ci grammaire ñeenti xat dafa am dafa am xadu taxqiq am xadu taksir am xadu taqrib am xadu taxlil laxad saada man yaati kama saada man mana ñool makka yaa leen ngën yàlla ni billaahi wallaahi ca laay ca dëgg dëgg-dëgg xéewal naa leen laqad saada man yaati kama zaada man mada njol makka yaa leen gën ñu ne ko yàlla koo ñu xéewale mu ni ba ma yónni ci yéen sayyidina Muhammad rasulillah laqad saada man yaati kama zaada man mada njol makka yaa leen gën yëguloo ni sayyidina Muhammad rasulillah keroog ba mu juddoo moom njol makka laqad saada man yaati kama zaada man mada njol makka yaa leen gën lam njëkk a def moom njol makka mooy dafa teen moom rasulillah naan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah man yaati kama saada man mada ñol makka yaa leen gën sayyiduna muhammad rasulullah keroog ba mu juddoo xoola waa makka am leget goo xam ni ku daan juddu dañ la koy këpp waaye keroog ba njol makka juddoo ban ko këppee leget ga leget ga dafa xar maam seydi haaji malik ni wa fil wiladati minhu jafnatun falaqat raja'tu wa lil filaqi ujabun inda qawmi immi laqad saana man yaati kama saada man mada ñol makka yaa leen gën yëglu ni waa makka seen sawara ban daan jaaw jaamu keroog ba njol makka juddoo ban demee ca sawara sawara dafa fay laqad saada man yaati kama saada man mada njol makka yaalin waa makka seen ndox man daan jaamu keroog ba njol makka juddoo ban demee ca ndox ma ndox ma dafa ngiis laqad saada man yaati kama saada man mada njol makka yaalin ay waay wasa asawata am gadat bu ayratuha warud dawaridu bil ghayzi nasmi laqad saada man yaati kama saada man mada njol makka ay waay ka anna binnaari ma bil ma i min balalin usnan wa bil ma i ma binnaari min darami ah, ah, ah. xola keroog ba njol màkk juddoo da ngay toog ba yàgg dégg am lu naan gën ci mindeef juddu na gën ci mindeef juddu na gën ci mindeef juddu na ay waay wal jinnu tahtifu wal anwaaru saati atun wal haqu yazuru min maana bil kalimi jëf yëguloo ne keroog ba Seydina Mouhamed juddoo moom njol Makka yëguloo ne keroog tabarakallahu iwaanu Kisra pale la woon boo xam ni tabax nañ ko junni at mustafet mais bi njol Makka juddoo tabax ba dafa daanu ba seen fukki poto yi ak ñeent dafa daanu suuf xadesana man yaati njol Makka yaa leen nga ay waay wa tadaaha iwaanu Kisra walaw laa ayatun min kama todawal binaaw xadesana man yaati njol Makka yaa leen nga waaye xanaa bëggu leen njol Makka waaye def leen ni ñu màggal Seydina Mouhamed rasulillahi laqad saada man yaati ah, ah. waaye kookoy Baye Abdoulaye Baye Qasim Baye Ibrahima Baye Seynabu Baye Umu Kalsum Baye Fatima Baye Roqaya maami Usman ak Asan maami Abdul Xaadir Jalaani Baye Seexu Tijaani waaye dama ne ku sar xol la yal na yàlla fas aajo ci barke Njool Makka yëguloo nag Seydina Mouhamadou Rasulullahi fukki at ak ñett nekk na ko Makka di woo waa Makka waa Makka lànk nangu luñ ko moom Alaaji Malik ni wajima asirata عاما في قريش سواء مناديا قوم والقوم في العرم واي وحد للاهل في التصديق فاس به ودده في على جنور منازمين كما سعد من مدى نجل مكة يا نجل مكة جوجي مكة دم مدينة المنورة أم ففكي أد أك بن مم رسول الله لقد سعد من ياتي نجل مكة يا نجل فبر بدانك المم نجل مكة خلا بن نيو لدون رب مم رسول الله بيبي ونيكو بوبي كما سمتي yi ñu ne ko mu njël makka ñaanal mu ni lu ma xam ñaan naa ko mais sama boobu jaaxal na ma man rasulillah yi waaye ndekete yoo feebar boobu moo nar a yóbbu seen soppe ba bar saq moom sayidna Muhammad rasulillah yi talaata la daanu feebar moom njël makka alarba alxamis ajjuma samedi dimanche altine talaata alarba alxamis ajjuma samedi dimanche altine seen soppe ba xawaa yadan hinda baadin fii taahud الله به أنا الرأي له في يوم العالمين زاد من مدى ñol makk yàlla sidna Muhammad Rasulullah keroog bi mi sukuraat moom ñol makk la mujjee wax mooy ay waay na ngeen fonk julli na ngeen fonk julli na ngeen fonk julli waaye na ngeen fonk njaboot gi la mujjee dénkaane laqad saada man yaati ñol makk yàlla xoola ñol makk altine la génn adduna talaata àllarba ci guddi ay këtëree di mata la ñuy soog a rob Rasulullah laqad saada man yaati ñol makk yàlla lu waral lool mooy keroog ñëpp ñëpp jaaxle ñëpp gëlëm min def satin aqru daf na nabi wala istiqali imani wala kala amri mi kamasa daman mada ñol makka yalla xoolal Seydina Omar gàddu jaasi ji nii ku ne ñol makka génn àdduna ma taqale sa baat loxade sada man ñaati ñol makka yalla xoolal Seydina Ali lu muy am fit keroog ba ñol makka juddoo dafa paralysé kamasa daman mada ñol makka yalla Aboubacar moo ñëw fekk fi Rasulullah tëdd xoolal mu tëdd si Rasulullah ne ko yëpp kii yaqulu xatibta ya badru fi alayka wa dami laqad saada man yaati ñol makka yaa leen ni ko neexul ba neexul waaye ñol makka sa dikk teena waaye sa dem teena yow rasulillahi kama saada man mada ñol makka yaa leen xoola bu la laajee ku sang ñol makka neel sayidna ali moo sang rasulillahi laqad saada man yaati ah. ah. ñol makka yaa leen waaye bu la laajee ku doon wëlbati ba ñu sang neel sayidna abbas moo doon wëlbati ak ñaari doom ya fadlu ak xusam ñoo doon wëlbati ñuy sang ñol makka kama saada man mada ñol makka yaa waaye bu la laajee waajee ku son sotti ndox ma neel usaamata mooy sotti ndox ma wa xaydarun xasluhu walin yuqallibuhu abbas wam naw fadlu sanni bil qusami waaye bu la laajee ban mbalaan lañ ko sàngee mbalaan mu weex lañ sàngee ñol makka wa kafanuhu bi biidin xul yamaniyatin wal maa u min biiri garzin at yabisan xola waaye bu la laajee ku mujj ca bàmmeel ñol makka neel bilaal moo mujj ca bàmmeel ba nit ku ñuul la woon moo tax ñun ñu am jural ci rasulullahi wa min alhamamati rasal xabru yabda'u min wijahati rasi summa albalbu darani laqad saa man yaati ndal makkaare waaye dama ne dix bu génnee ci teere beneen dix rek moo ko mën a remplacer gis nga dix boobu ñu takkal ko ku ne jotu la ñu takkal ko sama waaje mille cent cinquante kookoy kan Cheikh Seydi Ahmed Tidiane eh, Baye Mahamadoul eh, Kabir eh. Baye Mahamadoul Habib Baye Ismaïla Baye Moukhtar lépp ñu gën a santoon celui qui a hérité la promesse jug leen ñu màggal Cheikh Seydi Ahmed Tidiane elle année à Ayil Madi a été entré phase père de Mahamadoul Kabir et Mahamad Mouhamadul Habib ay e Ismaïla ay e Muxtaar yi yaakaaru jaam ñi Seydi Ahmad Tidiane yi ba ku nekk naagu ca waaja doo gis ku ñu dégg naa lanum nga tar ñëpp gëlam xaajoo kenn xamatul fu gën di ñam ñuy xaajoo xare bu tax li fi des mooy rawale sa bopp sax da nga yow mi le am ña xel torox lu jëm ca yàlla yaakaar xëtt leen ak la yàlla fenkal jantu ci moom nga sëpp ñetti jéego yeggu li meloom ka yàlla di pay ba wax ne la Seexul Tijaan léegi kooku mooy Ahmada Tidiane waaye dama ne sakkere boobu xoola ñu rof ko moom Ahmadou Ndak Seck mu jox ko Ibrahima mu jox ko Mamour Talla Seck mu jox ko Ibrahima Seck mu jox ko moom Alpha Mamadou waaye mu jox ko suñu soppe ba Cheikh Madické borom yàlla nee na ana ñu bëgg Cheikh Madické borom yàlla nee na kooku mooy borom yàlla waaye jug leen jug leen taxaw ñu màggal Cheikh Madické Seck borom yàlla nee na borom yàlla nee bàyyi ah waaw sant ah waa tant bi ah, ah, ah, waa tant bi xanaa kin waa xanaa kin bëggu fi Seex Madické Seck borom yàlla nee na bëgg tafsir ndikaan yaay coro borom xaral fuaat wa xalbi yowma fi dajarin lama atan nahyu min tilxaayi kajoori naxan nuhaatu habibi humdatu najabaayi man kaana siratuhu min ahsani siri ay waay bàyyu miskin ya dem na bàyyu jirim ya dem na keneen xettali way ñàkk ñi dem na Seex Madické Seck borom yàlla nee na dem na bàyyi sëñ Pompa Murtala dem na abul masakini wala itaami qadra ala kadalika alfuqaraa xulna fi xulba basari ana ñu bëgg sax ma di ko sakk ma doon yàlla ah, te daa may digal coro dayu ay waay jiri mi jooy nañ ndax sax ma di ko sakk ma doon yàlla nee noo muru tada may digal coro waay dama ne miskin yi jooy nañ ngir dem mu sax ma di ko borom yàlla nee muru tada ah. digal coro waaye bu doon ko war a dem bu la joxee ay milliards nga dem ñu jox suñu milliards sax ma di ko mu toog abal ah. masakini may digal coro law kaana yufda liman yufda maniyatahu yufda bima indana min aksari dorori eh, fuqara yi lii dañ koy dee waaye Talfa Ndiaye sa soppe ba dama sax mu ne ko borom yàlla nee na abal masakini waaye eh, Alpha Boy maa ngi lay jaale sa soppe ba sax mu ne ko borom yàlla abal fuqara yi ay ndigan coro waaye Talla Diagne maa ngi lay jaale sa soppe ba sax mu ne ko borom yàlla abal masakini ay ndigan coro waaye Imam Nasir Gueye maa ngi lay jaale sa soppe ba sax mu ne ko abal fuqara yi ay ah. ndigan coro ay waay Serigne Pape Moutada Seck maa ngi lay jaale sa baay ba sax mu ne ko borom abal murta ay ndigan ay waay papa bi maa ngi lay jaale sa sopp ba Cheikh Madické borom yàlla nee naa. bay ndikan coro. jërë ngeen jëf. baax na baax na baax na. banna. xubbatal islaami شمسها فأشرق بدر الساعات وشمسها كسب مامي سيخ سيدي أحمد تيداني لفنين مقل سيدنا محمد كوكو سبب سرين بام مرسلا مومباي ديكات من إجرى جنة كوكو كوكو سيدنا محمد ما أمري بولا باك maami borom yàlla nee na moo nu jàngal afaada nadaa faydan wa ahmala saadatan fa saasa bi sakkal qalilan wa siddatan ku sopp baayi murtada ku sopp baayi murtada ku sopp mam martaale góor gu mag borom jumaa ji borom penku jumaa ji ñam makka yaa leen dund kooku Seydina Muhammad Muhammadun نور عبد الله سيبة هازم حد مناف ما خصيه كهابة مرة كعب لوي خالد فعل مالك نبي الكرم لكسيدنا محمد كنانة وخزيمة ومدركة إلا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 اللهم صل على سيدنا محمد سيد البشر وشفع المشفع في المعصر ورضي الله عن كبريت الأحمر تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن سيد أحمد التجاني وجزى الله عن جدنا ووالدنا ومربنا من أحمد لك وآله وتلاميذه ومقدمه وأحبابه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه ñoo ngi nuyu ñëpp góor jigéen mag ak ndaw jël nuyoo bépp teg ko ci loxo Serigne Pape mu gën a gaaw xam naa waxtaan wu gaaw lay doon ndax kër alxaaji taala ñoo nga ñuy xaar dari lu laal kër sëñ ma dikk rek ñu war saa feeñ waaye macha allah yal nañ ko teewe déwén sama waajur ji bàyyi alxaaji taala yal na ko yàlla yërëm nee na guddi gàmm yàllaay ñëw yéeri bi guddi gàmm góor gi nee na benn yére la yàllaa ko ñëw xool taay bi ni mu toll keneen kooko solal ku dul bi mu ëpp ko dama ni bàyyi alxaaji taala yal na ko yàlla yërëm góor gi nee na guddi gàmm mbubb mu yàlla ñawal boppam la keneen kooko solal ku dul Moustapha dina ko meet yanu ko du teemu buubu yooyu yonent bi rek la jot rasul ni rasul ni ñeenti bis dani maa gën ñëpp yombu wax adduna koo ni maa gën baay mu bañ koo ni gën yaay mu bañ koo ni maa la gënub sëriñ bu amee fayda bañ waaye koo ni yonente bee gën sa mu nung koo ni yonente bee gën sëriñ mu nung mooy akmalul wara xalxan wa xuluxan Mustafa toog Babacar toog Omar toog Ousmane toog Moustapha xool leen ba mu neex ko mu xam ne gars yu baax a ngi nii moom la Ibnu Mbayoub naan bul way fa kam sayidin fiiha manuutun bi sayidin wa asbuka bi siddiqi tilwa muhammadin wa bi sayidil faaruqi xasbi bihim gadi salaatun wa taslimun ala xabri ahmadin wa xabri abi bakrin wa abi abi hafsi ñëpp a baax rasulullahi bàyyi fatima ak roqaya maami seex seydi ahmada tijaani borom baraagu ba njool makka xool leen ba mu neex leen mu ni loo leen baax baax baax baax maa leen gën mu ni loo leen baax baax maa leen gën omar ni ko foo ko teg omar ni ko foo ko teg mu ni ko ñeenti bis ñeenti bis a ngi ñëw bu ñëwee ñëpp xam ni lu yàlla bind maa si gën gaa yi ni ko ban ak ban ak ban ak ban mu ni bis bu yàlla dee dekkil jaami wax waxam juré jë ayna al muluki wa ayna abna il muluki wa ayna jababirata wa ayna alladina yakuluuna rizqi wa yaxbuduuna xayri li manil mulkul yowm yàlla day mer yowmal xiyam rey na lépp ba mu neex ko mu ni ana buuri àll ni seen ndaw ana doomi buuri àll ni seen ndaw ana ñi doon ngand ngandulu allah ni sendaw bam nekko muni limanil mulkul yow mu kan mooy buur tey taar binde ko lillahi wahidul qahar mu yee jibril yee mikail yee asrafil ni dem leen madinatul munawwara ngeen yal ma yonent bi jibril nit sëj ni ko yàlla koo ñuy yeeloo mu ne ko sama soppe la mu ne ko lu xew mu ne ko damay dekkel jaami atte leen te balaa kenn jug yonent bi dafa jug man yàlla jombal naa sama bopp nit di jug sa Moustapha jugul demal nga yel ma ko bul way jibril ñëw jibril bu ne bërit sëriñ Mourtala jibril bu ne bërit xam nga ñun bu du woon yi ni def fii ngay toll njotub Moustapha di la xeeñ billahi jibril bu ne cëpp xamul foo màkk féeti lépp raaf na waaye njotub Moustapha koy xëcc parfois ngelaw li jóge fële njët gi yóbbu ko mu koy wër di ko wër di ko wër ba fekk fi yonent bi tëdd armeer bi ni nam jibril xam ni fii fii la waa ji tëdd xam nga nu muy def daan mikaayil yee ko mu nu ko ëpp naa def asraafil mu nu ko ëpp naa def ñu jalax jibril dellu ginnaaw jibril dox paa doxaat paa ba jub raw da yonent yàlla muhammad daal di groupe ay womam suuf jël loxoom bu tedd bi raay bàmmeel bi mu moom jibril ni waat ñokket xool armeel bi ni ko waa tax armeel bi ni baj baj ni war teg waa yaasin armeel bi ni baj baj ni war teg bu ne waa muhammad armeel bi day fet mu naan ko yaa rasulallahi kanzul karami yaa rasulallahi tibbul xulubi yaa di ko tag armeel bi ubbeeku di ubbi ba mu yàgg mu ne teg am leer guy génn si biir armeeru rasulullahi ñu jekk-jekk leer giy jolli dañuy jekk-jekk ba si yàgg benn benn mbindeef benn mbindeef ni sëcc taxaw moom yonent yàlla muhammad buy dekki nii ma lay wax lay dekkee yaram wa day tooy xëpp moom rasulullahi njàpp moom ba mu faatoo njàpp la dañagul moom yonent yàlla muhammad suuf du ko naan buy dekk day sol yére ku dul moom yaramu nen buy dekk day sol dàll ku moom tànku nen buy dekk day sol mbaxana ku dul ah, ah du moom. ana wala saafi. Ah, ku sopp Moustapha jugal taxaw ma joobe rasul ta dem. ana awalu saafi. mu ni buy dekki danaan ana awalu saafi ah. ana ñu bëgg yonent yàlla Muhammad. ana awalu saafi. Makka. ana awalu saafi. Ahmed bu ne bërit. am na déma diglu rek dégg nga du ma la topp yaa may topp waaw tey du ma la topp yow yaa may topp waaw garaawul waaw yaa ngi bu dee bërit moom rasulullah bàyyi xalif bu ndee waa taxe ba waaje ni bërit bu jugee moom yonent yàlla Mouhamad kawar ga day daanu sa ginnaaw jo aw yonent ba daa weex tàll tàll tàll moom yonent yàlla Mouhamad saa taas bët la sa weex daa tal la sa ñuul ñuul kukk moom rasulullahi mu sol yére ajjee ni bërët jibril daan ne ko jibril lu xew mu ne ko yàlla nuy ne la mu ne ko fay naa ko mu ne ko yonent yàlla muhammad ñëwoon naa ne la isa zulzilat ardu zilzalaha wa arajatil ardu asxaalaha wa xaala al insanu ma laha yawma isin tuxaddisu axbaaraha bi anna rabbaka aw xaalaha tey la yàlla yi dekkil jaami mu ne ko ayna ummati mu ko yonent yàlla muhammad taaral nanu àjjana ngir yow yonent bi ni ko àjjana intéressé wu mu ni ko jugal mu ni ko lu tax mu ni ko yàlla nee na tey la war a dekkil jaam yi balaa kenn jug dangaa jug mu duur Babacar Babacar a ngi si wetu yonent yàlla Muhammad mu duur Babacar jug mu saafanteeg moom duur Omar Omar jug mu saafanteeg moom yonent bi taxaw Omar taxaw Babacar taxaw Jibril taxaw Mikail taxaw Asraabil taxaw mu ni tourné jublu penk moom yonent yàlla Muhammad tàllal loxo ba tàllal loxo ba mu dem bopp ba xiya yuut Ousmane Ousmane ni cëpp mu saabanteeg moom tàllal loxo ba loxo baa ngay daw yonent bi tàllal loxo ba loxo bay daw ba àgg Kuufa mu fëgg Aliyun Aliyun jug mu ne ko cas indi ko Babacar taxaw Omar taxaw Ousmane taxaw Aliyun taxaw Jibril Mikail Asraafil yaakaaru jaabi maa ngi Seex Seydi Ahmed Tijaani ñëpp taxaw ijaabat mu ni bu boobaa du ma taxawee ba yee gars yi ba gars yi taxaw ñëpp xam ni man bàyyi Fatima bàyyi ngeen gi mi def samiul wara wal kullu bil ah. xawfi arada ah, yamtiamadu nee na samiul wara wal kullu sëriñ Pape nga baal ma wal kullu boo ko siree ñëpp juum ibnu mooy dani shafiul wara mooy ram mi ndéef yëpp wara booba génnel rasulullah yi bokkul wal kullu dellul sa waraa ba génn yonent yàlla Muhammad bokkul da nga naan safiixul waraa kenn kële tegal yonent bi ne le teg gaa yëpp ne le ni safiixul safiixul waraa joxoñ gaa yi waa jële mooy ramu ñii yéen ñii da ngeen yi tiit ku dul kii du tiit mooy dese sago dekki taxaw rasulullah bi xafiadu bàyyi xale ba yëg nga ni tiit yow man xiyaam du gàcca Moustapha rek du tiit ilalla yasa ñu ne ibnu mooy nu muy demee mu ne ñëppay taxaw yàlla ni ah, après vous jigéen leen ma kenn du dem waaye dañuy jékki-jékki bu yàlla ne kaay leen sawaray jaayu tarmi bi sararin kal asri ka annahu jimalatun sufrun waylun yawma idin lil mukassibin baay di daw doom yaay di daw doom amul xarit amul soppe kenn du gis kenn ku ni demal da ngay bañ Adama day bañ Moussa day bañ yonent yàlla nuux xam nga kuy dem doo leen ma ko laaj borom tëj suñu nooy ya borom yaramu nooy nëpp borom xar kanam gu leer gaaw nopp yooyu génn sa ba kenn do rocceeku leer gay daw gémmiñ ga yaatu kawar gay daanu ñëpp ni teg kenn du ñemee dem waaye bàyyi Fatima ak Roxaya rasulullahi moo naan dagañ dagañ dagañ dagañ wuti yàlla bu doxee paa ful bépp xool yonent bi kenn du dem mu doxaat pa ba dox fukki paa ak benn bàyyi laaj taala nee na dina dox fukki paa ak benn geesu ful bi naa leen bu leen tiit bu leen tiit dinaa ko réglé bu leen tiit leen tiit bàyyi xalifa dama ne ndaanaan amul ndaanaan ndaanaan loo fi ndaanaan yowmal xiyaam lay am bu kenn dul jéggi jéego ku gis sa doom ni bërit ku gis sa yaay ni bërit kay daagu naan maa ngi nii maa ngi nii maa ngi nii rasulullahi yaakaaru jaami njool makka rek kay ndaa waay bana lam yoram lahu xat sulairo la sanawal yaate tama saada man madam njool makka yaa leen gën yonent yàlla muhammad ëllëg yowmal xiyaam bu ne bërit sëriñ Pape sa soppe ba bu ne bërit rasulullahi bàyyi xalifa xam nga nu muy def ñëppay mu dox wuti yàlla yàlla day mer walan yadia rasulallahi isa jaawu kabi isa kar du ma la topp de du ma la topp mu yonent bi ne fa dox ñëppay taxaw sëriñ pap kenn du dem yàlla ni kaay leen damay atte jaami kenn du dem Moussa du dem ndax yàlla day mer yombal xiyam Ayuba du dem yàlla day mer danay jekki-jekki yonent yàlla Isa moo naan kenn rek kay dem yàlla régler situation bi ñu ni ko kan la mu ni Muhammad foofa ngay dégg nit ñëpp ànd na Muhammad junne ana ñi bëgg Rasulullah hadam dellu miim del Muhammad kenn du sa yaa ngi bu ne daggañ daggañ Serigne Pape yonent bi day dox wuti yàlla yàlla xool yonent yàlla Muhammad fuul baa ngi ne yonent bi xotti fuul bi ilallahi yasaa fil jamii'i wa yahfidu a taarifu zaaka nabi Muhammad xam nga mooy kan xatibun li rusulillahi fil asri sayyidi mu dox wuti yàlla booba ngay seen jigéen di ëmboon day tiit ba doom jorot mu jeggi ko dem yowmal xiyaam daa tar foofa ngay seen ku naanu ku daanu mel ni ku naan sàngara alquran ni wa maa hum bi sukara walakin azaaballahi yonent bi ne wërëj wërëj wërëj ci yàlla yàllay xool yonent yàlla Muhammad bàyyi Fatima Roxaya day ñëw ba jub yàlla nii may def la yonent bi def day ñëw ba jub yàlla ni groupe naan ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yàlla lay xool baayu Fatima ak Roqaya yaakaaru jaami miftaaxul ijaabati martabatil jaamiatil asmaai wa sifaati ba mu neex yonent yàlla Muhammad mu ni yëkkat loxo bi xaaral ma àggal daal daaneel mu ni yëkkat loxo bi daanu ko rëkk ci suuf bu ne ko rëkk day sujjoot ni allahu akbar yàlla daanu ñokket daanu ko tapp tapp ni ko irfa rasaka sal toota wasfa safaata Serigne Pape ñoo ngi lay ziar nee na ma doy na ñoo ngi lay ziar. di la wax ne jamono xat waaye bu foo teg tànk gisoo ñu fa yëgal ni jamonoy soppeeku rek góor gi doog góor gi doog góor gi doog fay juge góor gi doog li may wax ni billaahi ak maa ñor may ma une minute rek billaahi may ma une minute rek waaw daaw daaw fii tax gaaw mu ma kër alaaji taala waaye comme alaaji taala génn na àdduna ay gan di ñëw te ñoo fa nekk looloo waral bi ngay ñëw séen ñu set waaye ñun ñun ñoo la soppal suñu bopp gëm la lu jiit sa baay di fàttu waaw sëriñ ma dikkee ba wax si làmmiñam billaahi wallahi wa taalaahi maa ngi toog alaaji taalaa ngi toog alpha Cissé ngi toog mi ngi dund mambayi Cissé ngi toog mu ngi dund mu ne alaaji taala ñaanal lan ma sëriñ pap billaahi maa ko jur waaye gënuma maa ko jur waaye gënuma ko daan ne alaaji taala du wey yëpp wey yëpp laa wóolu sama ginnaaw yi doom waaye wóolu naa say weesi ginnaaw sëriñ pap yaa dis gor sec amul taalibe bu la rusa xool goo gàcca waxa goo gàcca dafa goo njóbbu tëb waxa goo njóbbu tëb ma goo ñu lu bari ñoo tolloo ay at daanaka tolloo génération daanaka waaye li li ñuy def ñi may too ko ngir ñun yaa ngi ñuy sagal lu nu neex sol sa ñëw ko fu nu neex dem sañoo ko kon sëñ pap am na nag ni la jërëjëf rusloo woonu bu sëñ ma dikkee ñëwoon doo li li nit ñi wax du ma ko wax bu sa baay ñëwoon doo soppi a axa ah, kay di nga soppi toogaay ndax or ma waaye du jëf ju ñaaw joo def asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi may bëgg way baayu murtada الله محمد ما خطب لله بنذر سيد تطيه به دنيا واخرى برزق لا بعد من ربا وتابع زهره ومن اخذ ذاك ترى بزهره وان كنا لم نبلغ وقد جعلها بالغراء نرجع جواره وكل مي بالفلبيب له اسمه كاش مدينة المنورة لقد بعد من كان رسول أمامه يا حبيبي نظر نجاة إمامه وكل من استحسى عليه أنعمه تغير وجهه نظري سارا أمامه وأنا ما بين قبل وسلتي كزمن نور منور لم تزل في دماء الكون بغداد لك الأمهات والآباء كزمن نور منور ما ملت بردة من الرسل إلى بصر الحمى ذكر الأنبياء कैसे मरीज मुनवर तनबा बेकार उस वस्मो बेकार याओ बरा याओ कैसे मरीज मुनवर वो बदाल वजूदी من كريم من كريم آباء الكرماء كجمدين المنور نصب تصب الأولى بأولاه خلد لها نجوم الجوساء حبسا فقد صور وبخار أنت به اليتيم العصماء كجمدين المنور فتأتي ومن عنكم لقد فاز من كان رسول أمامه يغر به لو نجات إمامه وكل من استهزى عليه أنعمه تزر رياء النفي سالا أمامه فأداه ما بين خب وسيلة كذا مدينة المنورة مويودا موي كوثر قد غزا الله كوثرا بي أنت بي يوم القيام خليله كذا مدينة المنورة وهذا اتباعا قبل نزل آدم وما لا أخلاق أنا مثيله يا الله كوشك تك سوينك لا خلو يوم عظيم قوات لها بركه نروم سنا مصطفى بعد ما اتى سلام من الهادي عليه جميل تاتي مدينه المنوره مصطفى خلقي مؤخر البريه موسم على بغدام يا جد سودان كتمدين منور يا جد يونان يا لنسد المسام يا سن كوماندور يا سن وبريوان يا تبنوين لبنون جل جدس tabbat ya gaalam gas gay yow ma toofaan Ibrahima keroog bañ ko sànnee ci pla la ca xew bañ wax ne yaa naaru ko ni yaa ko santaane maa wadat wadatun mi ne ruila asan xaw ma bi kalen bi yaw yonent bi mu doon bala muy dem dénkaane sa mbir ndaanani ndaanani yaa leen jox la ñuy daane moo doon melet Ibrahima moo ci mitaal loolu idaayati ba mu daj kula ko waani kon ko yaa rabbana fedi wa samayihi amin na xalaat di xinaa bi وإنا وصول الأسواق يا يا إلهي يرزق هل أنا أسود الغاية إذا دين لم يكمل فلا كان الدنيا فأنت با بالله أي امرئ أتاه من خيرك لا يدخل مسلما ما فاح عطر الحما وتاب منه الدول مندل اي مصطفى كي جرناوي يا اكرم الخلق على ربه وخير من فيهم بهم يسأل قد مسني الكرب وكمرة كرت كربا بعده يذعل فحيلتي ضاقت وزبر خدا ولست أدري ما الذي أفعل ولم ترى أعجز مني فما لشدة أقوى ولا أحمل عجل بأذهاب الذي استكي فإن توقفت فمن أسأله سيدنا محمد ولن ترى أعجز مني فما لشدة أقوى ولا أحمل مسلما ما فاح يجر الحمار وتاب من حنا الدوق وعوب الجنا بكم جرى لمي بقى بالجنا بالجنا نكلك لمي بقى بالجنا والله بقى وعوب أجل خيجك وأمن خم خم أم ولاية أم دراية am na xam-xam am wilaaya am diraaya am maqaama te am na fi dili leer na li kam coro la ni bëgge ba aljana ba aljana li kam coro la ni bëgge ba aljana la ilala ñu ko bëgge waaw aljana xay ca kaw ana so coro dama lay wayli war naa ndikkan coro la ni bëgge ba aljana ba aljana ndikkan ni bëgge ba aljana laa ilaaha illallaah ndi ko ba aljana aca loxo yi ca kaw am na xam-xam ca di jàmbar ju am ngërëm am na xam-xam ca di jàmbar ju am ngërëm coro ki raw naa ndikaan coro la loxo yi ca kaw ndikaan coro la ñuy bëggee baal jana kër gu mag gañoŋ armel ya woddu ma dal naa mi kan toroo la nii bëggee ba aljana aba aljana ndi kan toroo la nii bëggee ba aljana laa ilaa ilaa laa yi ko bëggee waaw ba aljana aja loxo yi ca kaw mboolem canaba canaba yi sigal na leen mboolem canaba canaba yi sigal na leen limam bëggoon Canaba Kajoor bay jëf naa ndikan coro la ni mbege baal moom la nuy bege ndikan coro bari ngor yow du dul sa bopp bi kurus geeg sa jàngu bi fi nga xaroo sa téere bi lii nga saxal ba ñëpp fëx Seex Murtada ñun danu mar tamar wi weesu na tar tëree réewoo ci la koo duyal du naan lu nox Seex Murtada borom yàlla nee na Seex Murtada miskin mu ñëw nga tereel jirim bu ñëw nga yërëm ku aajo ñëw nga fajal aajoom ca doo fayu bor yaa te won ko sakku woo ko wallahi yaa bari ngor ah ñu ngi dégg bu baax. waaw ahzam ani julaabi qirtaasi ku bëgg Seex Tijaani mooy ruuxul wujuudi wa xubbul kawn markazoo mooy mumitoo si ruusaa أولياء الناس شيخنا تجاني ما حقيقة الكون معنى سر ممنوع سر وآية فين العلاج بلا لبس ولا باس كبك شيخنا التجان كبك شيخنا التجاني عن التجاني تاج العارفين ومن بسابع الفضل من عرفان القاسي شيخنا التجان ومن محبته ديني وخلته عقلي وروحي وجلاسي وأحداثي شيخنا تجان مي باب الإله رفيع الجاي مرجعنا يعوي إليه ضعاف ثم الأعفان شيخنا تجان أساسنا شيخنا تجاني قدوتنا شيخنا تجاني إمامنا شيخنا تيجاني برزق الهادي لقيراني شيخنا تيجان موي قب الوجود موي ولي الدهر مم سيدنا موي مختوم كموي مختوم موي سر سر الرحمن انا صبي برم يا لنينا شيخنا تيجان في باطن الغيب ان الغيب يسره موي غيب القيوب فانت الغيب كتماني شيخنا تيجان جزاك رب ورا خيرا بأحسن ما جزا به محسنا واتنان منان شيخنا التجاني قصير سيدي لا تلتفت أبدا إلا سواه فأنا اخترت خسراني سلم مرتدى سواجف الكلب فاز بقب الصالحين فيا إخوان حب عباد الله رباني كسب شيخنا التجان فوق سعادة المرعي في الدارين كان على حب الرسول وحب شخصين أحمد التجاني شيخنا التجان من بيته خيمت ألف بدون مرض فإن ذلك فبالله الرحمن أنا سبي برم يلا نينا سيخنا تجار في باطن الغيب أن الغيب يستره غيب الخيوب فأنت الغيب كتماني شيخنا تجان جزاك رب الورى خيرا بأحسن ما جزابي محسنا ورنان مناني شيخنا تجاني قصر دو سيدي لا تلتفت أبدا إلا سواه فأنا ترك خسراني قل فيا ربنا في أرضي وسواي جرمك منا على تصديقنا بسواه الجواري شيخنا التجاري فيناوز الأسواق يا بداعي سيدنا محمد يسق علينا العز دون لقائه ننبي كي نقدر يا كاروت ما مجلنا لبيك اللهم لبيك AIVLT voyage ku ne dégg na AIVLT voyage voyage leen si confort dans la quiétude nga bëgg a dem umra ji dañu lay taxawu gunge la nga bëgg a dem marok ñu taxawu la ba pare si njàppandaluk marocain bu loisir du tourisme culturel bi El Hadji Niasse ñi ngi jiite dina leen yombalal seeni déplacement si biir Maroc ci ay auto yu yand bien climatisé ngeen dem Fès dem raba Casablanca ak Marrakech en Europe naka noonu nga bëgg a dem Dubaï mbaa fépp foo bëgg a dem ci biti réew contactel AIVLT voyage AIVLT voyage yamul foofu dina def ay colonie de vacances des voyages de groupe ak yeneen ak yeneen l'agence internationale de vacances de loisirs du tourisme dirigée par El Hadji Ndiasse Gningue dina leen dalal ci ay hôtel VIP 5 étoiles location de voiture tekki di càmmonteeg mesure barrières yi jokkal ak waa AIVLT voyage ci 77 645 54 02 ci 76 639 19 19 ci 77 656

Thiénaba TV avec vous avant, pendant et après.